nuyu nañ leen bu baax jaajëfal leen yéen ñi safoo site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek situation politique bu Sénégal nga xamante ne rek waxtaanee nañ ko foofu ca diwaan bu Genève bi ñu doon feete nag juróom fukk ak juróom-benneelu yoon bu session du conseil des droits de l'homme di organisation des nations unies maanaam kuréel guy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ki nga xamante ne rek moom moo nekk au commissaire des nations unies aux droits de l'homme daal dinay sàkku rek daal di bàyyiwaat yeneen détenus yi xamante ne rek ay détenus politique lañ te ñu ci bëri rek eh, ci opposition bi bokk yi nga xamante ne rek nguurug Sénégal mu eh, eh, nga xamante ne rek nañu ko ndiki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi ñu génn rek kii di chef de l'état Macky Sall moom moo daal di annulé mbir mel ginnaaw semaine bee passé ba tey rek ñu ngay daal xam ne rek ci arbitrage bi nga xamante conseil constitutionnel daal dina koy dëggal moo di ne ñu amal élection yi ci nu mu gën a gaawee ndax kii di président de la Macky Sall dafa daal di xamle woon rek ne nag dina ko def jamono ji nag réew mi daal mu ngi ci tension politique dëgg moo xam parti politique ak civil bi yépp ndax ñetti at yi ñu génn nemmeeku nañ fi nag arrestation yoo xamante ne kenn xamul lu mu doon lu toll ci mille membres de l'opposition rek daal dinañ leen tëj ràpp ci kaso gi ak ay activistes depuis 2021 moom nag nee daal ma ngay sàkku rek ñu daal di def libération ci ñi nga xamante bi ñi nga xamante ne koy euh, changé ba tey rek nee na ma bu baax euh, gouvernement bi nga xamante rek daal assuré comme conclusion ab dialogue boo xamante rek bu ñu ko defee nag dina may ñit ñi bokk nag ci façon boo xamante rek façon bu libre la euh, liberté ñu daal koy am waaye nag bu boobaa rek dinañu am vision politique boo xamante rek dina mucc ayib ki ko xam ne rek nekkul kenn rek dul haut commissaire des nations unies aux droits de l'homme di wóor na fexe abonné bës cloche de notification ngir